salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ngi am mbégte kontante di dellusiwaat ak yéen ba tey ànd ak ki nga xamante ni mooy Bou Comédien ñu bàyyi ko mu nuyoo su ko defee ñu soog ñëw ci li nga xam ne mooy temu bi. Hmm. ñu ngi leen nuyu ñu bàyyi lay bu baax. tey nag euh, thème bi nga xamante ni moom lañ indi woon mooy que ni Sénégal. Hmm. dafa bëri ñoo xamante ni dañuy jógee fii dem extérieur man nag ma daje ceeg ñoo xamante ni. Hmm. xaw ñu bëri ñu bëgg a dem France ñoom ñëpp. Hmm. waaye nag dañu bëgg mu am baat yoo xamante ni dama leen koy jàngal ci français. comme ça hmm. su ko defee. ñoom bu ñu yeggee foofu. Hmm. suñ demee ci usines yi xam na sénégalais moom. pratiquement surtout bu ñuy lekk ceeb. foo jaar. ñu ñu ni xooñ ak yi demee noonu il faut ñu utiliser ko. ñu sonal ma ci loolu nag parce que am na ci koo xamante ni moom dafa ni. moom bu toogee journée te lekkul xooñ moom dafay am problème te su demee nag xamul nan la koy waxee bi ah. léegi nag. ma bëggoon ñu wax ñu yenn question yi rek après nga indi ñu ci ay réponse ñu wax la yenn question yi nga indi ñu ci ay réponse loolu yomb na xooñ nan lañ koy waxee loolu yomb na xooñ ci tubaab pepp ngay wax <laughs> waaw léegi nag ki nga xamante ni moom dafa dem ba si yàgg yaramam commencé xasan mu bëgg wax tubaab bi waxal ma ko kooku lan la wax da ngay naan <laughs> boo nee boo nee si si si français piip la ñuy wax waaw mais aussi euh, d' accord pipe la ñuy wax boo waxee pipe mu kii léegi nag tubaab bi bu fekkente ni dalaa def loola neexul nga ba ko wax ko eh bu fontoo ko. attention daal nga koy wax ne ko attention attention tubaab bu la bëgg a fontoo Europe dégg bu mu mu làkk la français nee la bëgg laa toroxal ne ko attention. mais ki nga xamante ni maanaam yow yaa ngi si benn entreprise di liggéey ak tubaab bi liggéey ngeen ba si yàgg nga bëgg a wax tubaab bi ni ko eh damaa sonn la koy wax. fatigue nga koy wax. boo ko nee fatigue rek mu xam. da nga koy naan fatigue yow su ko defee mu xam ne. kaa jarul sànq jarul jarul sànq si sonal sa bopp ne ko fatigue rek boo ko nee fatigue rek war mën naa comprendre ñun ñu ñu ñooy mën a comprendre ñoo ñoo dul comprendre wante boo ko nee fatigue rek tubaab bi war naa xam ne ne da ngaa Dakar nag nan lañ koy waxee ci tubaab. Dakar euh, ploc. très kooku moom man su ma demee moom incha allah maa ngi ciy jël note yooyu yëpp dinaa leen ko jàngal bu baax a baax a baax mais aussi euh, am na loo xamante ni dañ koy faral tamit di utiliser lu bëree bëree bëree bëri mooy par exemple xam na boo comme bu ma demee France moom ma bëgg dugg ci njaganjaay yi léegi xaw ma njaganjaay yi fi ñuy taxaw su ma njëkkee daje kenn kooku lan laa koy wax pour mu mën maa guider ma xam fi njaganjaay yi di taxaw. boo gee foofu rek. nga dem ba France xamuloo foo jëm taxaw fi tubaab yi taxaw di déglu seeni langue boo déggee Marseille Marseille déglu ko rek bu duggee nga dugg topp boo ko laajtee am na si tubaab yoo xam dañu bon nit ku ñuul rek lañu bañ boo ko laajtee rek mu toroxal te mën na la xoolal tableau bi. loolu leer na ndeysaan ñi nga xamante ne ñoo toog di ma xaar toog leen rek maa ngi ñëw li ngeen ma laajoon lépp. donte ne xaw ma ko mais laajte naa ko incha allah maa ngi ñëw léegi su ma ñëwee leeralal leen ko yéen kon nag ñu ngi leen jox dig daje yéen aussi ak euh, beneen numéro incha allah